mangi wax benn aya bu suñu borom subhanahu wa taala wax ne ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa an-nasu hijara alayhimul malaikatu hilasun sidad la yasuuna laaha ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'murun suñu borom subhanahu wa taala mo ñu wax ne yeen julit yi moytu len mbugal safara ak mbugal safara itam ngeen musal ci seen njabot parce que jullit bo xamantene ne yaa ngi bàyyi sa dom muy setan ay théâtre yo xamantene ne day infecté wala day reflété ci dundom day lu mu gis ci télé bi daf koy bëgg appliquer ci dundam diko ko dund ci weeru koor loolu lu ñu ñu ñaw la loolu motax tax père de famille suñu yaay ak suñu papa ak suñu mag war nañu góorgóorlu bu baax ci éducation de doom parce que yenn saa ci ci kese lañu la jël théâtre yu jël film comédien yu bëri di di ko teg yu bëri nag ci weeru koor amatuñu benn benn amatuñu lu télé ay film ay comédie ay théâtre ay suñu borom dafa téré julit bo xamantene day déglu tiaxan wala mu sétan tiaxan suñu borom day téré julit gi di sétan wéru koor ak ludul dul koor di déglu tiaxan wala di sétan tiaxan julit du tiaxan konak kon nak bo nekké responsable diiné war nga góorgóorlu bu baax ci li xew ci jam ci jamono parce que ñi di def li de dañ bëgg yaq diiné bi fan lañ ko jarale, ci xalé yi xale yi nag loolu dañ koy dund dañ koy xool bu kaa dund bu ko defee nañ commencé di yàq seen seen éducation loolu moo tax pour nga am xale bu yaru suñu jamono bi yomatul kon nag maa ngi ñaax sama bopp en tant que responsable diine en tant que waxkatu diine di ñaax sama mbooleem mbokku imaam ak mbooleem mbokk oustaz ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ci comédie yu ñu def ci weeru ko koor bi loolu àndul ak koor waro wor di setan tiaxan wala di deglu tiaxan kon nak njabot bi war nañ ci gorgolu bu baax baax suñu rak suñu magi ak suñu domi buñu woré nañu moytu mbiru comedy mbiru ay film wéru koor nag ak luddul dul weeru koor parce que wéru koor dafa nag weer bo xamantene day yar jurit gi yar jurit ki ci lan ki mandu jar yar jurit ki ci lan ci ragal suñu borom subhanahu wa taala yar jurit gi ci lan di jëf lu baax yar yar jurit gi ci lan di def lu baax yàq julit yar julit gi ci lan di bañ def loo xamante ne déppewul ak jàngale suñu borom subhanahu wa taala déppewul ak njàngale yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag loolu bu ñëwee ci weeru koor bi julit bi war na góorgóorlu boo koor bu passé yar googu bi nga am ci weeru koor bi julit weeru koor bu passé nga góorgóorlu ci yar googu pour nga am tarbiya ruux sa ruux bu baax a baax kon nag fi ma ngi ñaax sama bopp di ñaax mbokk yi li cheikh maktar kebe waxoon mu nekk président ris al waxda mu ne ku ne war na xoolaat boogam boppam digganteem ak boromam parce que mun nga mun mun nga di waajal wax ne ah man de xaaral ma def lii peut-être mun naa sama heure de jot jotagul fekk ne avant tàkkusaan mun nga daanu wara avant gexe gi mun nga daanu kon nag ku ne war def boppam inventaire war na def boppam audit avant suñu borom di ko audit wala avant suñu borom di ko inventaire kon nag maa ngi ñaan sama mbokki di ñaan suñu borom subhanahu wa taala teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim mosal ñu lépp loo xamante ne mun nañu yàqal suñu diine te lépp lépp lu ñu yàqal suñu diine mooy théâtre tubaab yi Sénégal dañ jël dama dem dama dem dem boo tubaab yi sax suñu Sénégal moo leen raw ci wax lu ñaaw ci def lu ñaaw ji di doxalin ci lu ñaaw kon nag surtout suñu réew nekk réew diine nekk reew yoo xamante ne kilifa yu diine yu bëri dañ fi wàcc kon nag ku ne war na góorgóorluwaat bu baax xam ne kilifa yooyu de bu ñu fi nekkoon bu buñ fi nekkee xam lu jamono bi nu mu doxee ah dañ wax ne lu ñu jàngale ak lu ñu fi bàyyoon ak lu ñu fi fekk du du benn kon nag loolu waroon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu yaraat suñu bopp yar mbokk yi yépp ci suñu bopp ci diine góoru ci diine bi suñu borom subhaanahu wa taala kon bismillaahi rahmaani rahim e, di sant ñi nga xam ne ñoo fi nekk yépp suñu kilifa diine yi nekk fii nii ndaxte ñoom ñépp ñuy toog suñuy kilifa diine lañ imam ratib bi moo jiite waaye ñii ñëpp toog ay imaam lañu ay ustaas lanu ñu baax lañu mag yi nekk ci koñ bi tamit suñuy nijaay suñu papa yi ñu ngi leen di sant ci taxawaay bi nga xam ne nii am nañ ko ci jumaa ji et gare bi nag dañoo amoon aussi message boo xam ne dañ leen koy lancer ndaxte ñun acteur transport lañu e te koor gi bu jotee comme ci waxtaanu koor gi la ñu nekk nit ñi dañuy sonn ci yenn heures yi mën nañ laa laal toogal fii wala am nga weccet wax bi nekk loo xam ne nii ñaaw na lool ci diggante ñaari jullit yoo xam ne ku ci nekk nee nga yaa ngi yàkkamti ndogu jot ba nga dem ndogu ji di ñaan yàlla mu nangul la sa koor kon nag comme ni ko ustaas waxee wax bu ñaaw boobu noonu e, ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñooy chauffeurs yi ñi nga xam ne nii ñooy coxeurs yi e, ñu taxaw ci loolu ba loolu noonu bañ a am ci enceinte gare routière bi ak fépp foo xam ne nii dem nga foofu ñi nga xam ne ñooy voyager tamit ñu am benn tolerance ak muñ boo xam ne dinañ ko xam xam ne yàgguñu ci yoon bi ñu ngi remercier nag ñi nga xam ne bi jàkka ji taxawee ba léegi ñu ngi fi def seeni ndimbal mooy musulman yi nga xam ne dañ fiy taje ci waxtu julli yi parce que ñoom tamit lépp li nga xam ne ñu ngi ko fiy joxe bi sabili laa lañ koy joxe ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay leen ko waaye ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi wala ñu dëkk ci koñ bi wala yàlla dénk leen loo xam ne nii comme ni ko oustaz waxee mën nañoo jënd dogu mburu teg ko foo xam ne nii ku woor ba heure jot fekk euh, heure dog fekk la fa nga ndogoo ko ñu ngi ñaan yàlla ñoom tamit ñu barkeelu ci xeewal boobu xam ne yàlla mu ngi ko teg nii di xaar ku intelligent koo xamante ne nii day réfléchir profito ci loolu kon nag ñu ngi ñaan ndimbal di ko jiitale ci ñi nga xam ne ñooy autorités yi fi nekk di ko jiital ci ñi nga xam ne nii ñooy transporteurs yi fi nekk ñoom ñëpp ñu góor góorgóorlu ci jumaa yi ba heure ndogu bu jotee kum fi fekk yàlla def ñu mën laa jox benn dogu mburu ak benn kaasu kafe boo xamante ne nii di nga ko yóbbu am na ndogu bu rëy tamit boo xam ne dañ ko fi organiser dañuy jàpp jour bi incha allah wa rabbi def ko pour garage bi yëpp ak ñi nga xamante ne nii ñoo fiy jaar incha allah wara bi ñu ngi ñaan imaam yi ñu def ci ñaan bu baax a baax a baax a baax ci garage bi ndax ñi fiy jaar di dem di dikk ci jàmm ak salaam loolu ñu ngi leen di ñaan foo leen jullee ngeen ñaanal leen ndaxte nag dafa di loo xamante ne nii lu am doole la nit ñi dañuy dugg nit ñi dañuy génn suñuy njaboot ci lañ bokk ñun ñi ci lañu bokk ak ñu ñu xamul kon nag yéen foo leen jullee rek ñu ngi ñaan ngeen ñaanal leen ci loolu yàlla saxal fi jàmm loolu daal lañu ñu bëggoon a wax rek waaw di ñaax rek ku ci nekk tamit booy voyager incha allahu rabbi nga ànd ceeg au moins ah tuuti piété. xam ne rafetul am na manifestement yoo xam ne gor moomu ko am na wax boo xam ne nii gor moomu ko doomu jullit moomu ko kon nag loolu noonu tamit ñu ngi ñaax ci transport bi ñu sóoraale ko bu baax sol lu yiw eh, xam ne weer bi comme ni ko oustaz waxee yàggul benn weer la ci fukki weer ak ñaar. ñu sol lu yiw waxee nu yiw doxee ñu yiw su ko defee suñu coono gi ñuy daj ci koor gi yàlla mun ñu koo fay ay yiw incha allahu rabbi bu keroogee alaaxira yàlla na yàlla doolu sutura yàlla na yàlla doolu jàmm yàlla nañu yàlla doolu sutura jërëjëf loolu rek laa ci bëggoon a yokk alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man hadaahu waliyan rahmatan lil alamin saydina wa habibina muhammad wa ala alihi wa ashaabi ajmain nuhayikum bi axsani tahiya wa allah waxiy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhaanahu wa taala di julli ci wa sallam mu ngi leen di denk di denk suñu bopp ragal yàlla subhaanahu wa taala di sante ñuy toog ci jeetaay bi nga xam ne rafet na ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci diine ndax bokk na ci li nga xam ne mooy defin mooy taa li ñuy wax taawun deflante ñu deflante ko ci ru rafet macha allah lolu amna ci juma bi waye kazalika amna ci garage bi wër bi nga xamne ñu koy wajal yal na yàlla def ñu dug ci bismillahir rahmanir rahim waye kazalika ñu gën ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu gën gor gorlu ci li nga xamne moy ngeneel yi ci nekk ngeneel yu bari mo ci nekk ci xeywal bok na ci ñu gorlu ci naafila yi ndax nafila ci weeru koor yàlla def koy def comme farata bu ko defee boo mën na ko bu boo ci juróom-ñaari tiyaaba loolu yépp nag dafa war jullit afaat ci weeru koor rawatina li nga xam ne mooy weeru koor niñ koy xamee fii nag bari na ci commencement bi ñépp ñoo ci taxaw waaye boo demee ba ci biir rek am ñoo xam ne dañuy yacaaral te loolu moom islaam santaanu ko képp koo xam ne bokkul ci ngant li yàlla wax ci alquran mooy koo xam ne mën na bañ a wóor walla mu toxal ko ci yeneen suur yi bu fekkee ne uh, feebaroo nekkoo ci yoon amoo ngant boo xam ne war na mën a tax nga bàyyi koor te yàlla moo gën a xam doomi aadama moo ko gën a jege xolam moo tax lépp looy def def ko sa diggante ki yàlla nga góorgóorlu teg ko ci e, doxalinu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam parce que boo ko defee mel ni da ngaa muus te fekk da nga dof yàlla yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne alkayisu man daana nafsa wa amila lima baada al mawt ki nga xam ne mooy muus mooy ki not boppam liggéey yàlla li nga xam ne mooy ginnaaw dee kon yàlla nañu yàlla def ñu góorgóorlu ci li nga xam ne mooy ngeneelu koor bi di góorlu ci naafila yi di góor góorgóorlu ci jëf yu baax yi di góorlu ci njàng alquran bi loolu yépp eh, bokk na ci li nga xam ne mooy gën a yokk li nga xam ne mooy koor ñu moytu li nga xam ne mooy yàq koor parce que bari na bokk na ci déglu caaxaan bokk na ci di ko dox bokk na ci di ko seetaan bokk na ci di ko wax yal nañu yàlla musal ci loolu loolu warul jullit bu dul weeru koor sax kun fama baluka ci weeru koor kon yal nañu yàlla musal ci loolu yépp nga xam ne mooy amalu saytaan te ñu xam ne nag weeru koor bi yàlla moom moo ci wàccee xiiwal bokk na ci dañoo tënk saytaani lépp loo xam ne nit def koy def rek day góorgóorlu ci lu jëm ci borom bi subhanahu wa taala ndax ba koor bi paase saytaani moom doxatul li nga xam ne mooy liggéeyam dañ ko takk moom du liggéey liggéey bi nga xam ne moom la nekk di xeex doomi aadama yi di wut koo xam ne moom la àndal di dem safara yal nañu yàlla musal ci ñooñu kon ci gàttal ñu ngi sant waa ñaaxar ak jullit yi yépp di leen ñaanal jam ak euh, li nga xam ne mooy yërmande borom bi subhaanahu wa taala mu fekk ñi nga xam ne ñoo jiitu waaye ñii fi mujj yàlla defal leen axira xasana mooy mujjanteel bu rafet yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def lépp loo xam ne jub na fa yàlla la jóge waye lepp lo xamne dañ ka doomi adama mo motul motax ñu tudde ko insaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi nuyu ñepp mbokk yi waa jàkka ji nuyu na leen ñepp wa gaaraas ñepp ma ngi leen di nuyu euh imam ma ngi lay nuyu bilal dega de contane na ci yene ndax lii rafet na lool rafet na kontaan naa aw ma ci waxtaan nag mais kontaan naa daal yéen waa Niakhar 24 ni ngeen ñëwee ci jàmm yàlla na ngeen ñibbisi ci jàmm ak salaam jërë ngeen jef euh, ñu ngi rafet ñu ngi rafetlu teewaayu télé bi muy Niakhar 24. Euh, di encore ñi fréquenté jàkka bi ci melni ni sama tonton yi sama magi ñom imam ñom Bilal ñom oustaz yeb sama tonton yeb wa ji naanal euh, ñi euh, samp taxawaayu jàkka bi di le di ñaanal guddu fan ak wér gu yaram di ñaanal wa Niakhar 24 ñuy ñëwé fi ak jamm yalla ñu délo ak wa waa asalaamaaleykum wa rahmatullah ma jeexale rek. di ñaanal wa ñaaxar yépp ñaanal suñu kilifa diine yi ñu fi nekk ñaanal suñu imaam yi ñu fi nekk suñu papa yi ak suñu yaay yépp suñu borom may leen wer ak wer la incha allah teg ñu ci yoonu siratal mustaqim ñaanal waa garage bu baax ay jambaar lañu jaka bi waxtu bu fi nekk boo fi ñëwee presque ay sauveur kese nga nga fi fekk ñaanal waa quartier bi yépp vraiment ñooñu itam am nañ ci une part de responsabilité bu rëy ñu ngi ci góorgóorlu ñu ngi ci jàpp bu baax a baax di insister ci sofooru garage yi vraiment ay jàmbaar lañu ñu ngi góor góorgóorlu suñu borom subhanahu wa taala musal leen ci sayaatin teg leen ci yoonu siraatal mustaqim mënuma wax te waxuma chef de garage moom mag bu baax la jambaar dëgg la vraiment nit ku bëgg diine la nit ku disponible la vraiment ñu ngi ko ñaanal bu baax suñu borom may ko sutura àdduna may ko sutura alaaxira teg ko ci yoonu siraatal mustaqim vraiment suñu papa la suñu mag la suñu lépp la to dafa disponible lool ci garage bi tax tax taxawaayam rafet na ci ci ci jumaa ji ñu ngi nuyuwaale itam monsieur le maire maire meemeeru Ñaaxar di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal sutura bu yaatu di ko ñaanal liggéey bu rafet ci ci commune bi incha allah di ñaanal waa Ñaaxar yépp di ñaanal suñu mbokk mbokk yi yépp ñu fi nekk ñaanal suñu dëkkandoo ñu fi nekk ak suñu mbokk yi yépp maam maa ngi leen di ñaanal di ñaanal waa jumaa ji ñaanal sama mbokku imaam yi ñaanal sama mbokku ustaas yi salaamaaleykum jamian wa rahmatullahi